gaaw leen gaaw a te topp ñu ci seen seen Medoune Fall TV Medoune Fall TV moom moo lay jox actualité en temps réel fépp mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew boo bañee benn événement wala activité religieux raw la koc ñu gaaw ci Medoune Fall TV. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki juddi di mbokki taalibe ñu ngi leen di ziar tey jii nag ñu ngi fii ci kër Soxna Maymunatu Mbàkke bintu Xaadim bi tolloog le 3 avril ñu ciy bi nga xam ne si moom la moom mbokk jullit ñi ak taalibe yi nag ñu ànd ak site boo xam xamante si nag surtout réew mi la doomu réew mi moo ko moom muy site boo si ni lépp doon toj ci sinab ba bi ndax lépp loo xam ne intégralité la ak événement bu alaaji Medoune jaar rek koj ko ci site bi dañ ko fa fekk ak intégralité leer am qualité site bi nag suñu site la ñun ñëpp mooy site boo xam si ni moom la ñëpp doon xaar te yegg si na fi mu ak seen mooy ko soxna Mame Ngor Bintu Xaadim mu xaddi site mooy Medoune Fall TV na ko mbokk yëpp dem te ngeen gaaw dem abonné ji abonné leen ci compte YouTube bi am ko bi ku amul Medoune Fall sa téléphone am ko ci YouTube bi ci image yu leer ak son bu amul fenn mu Fall TV daal mooy télé Medoune. gaaw leen gaaw abonné te topp ñu ci seen seen Medoune Fall TV Medoune Fall TV.